Pape Djibril Fall Papa Diop nee nañ ak aar. Mm. ñii nag instant bi dañu nekk ci benn choix bu xaw a difficile. Mm-hmm. waaw njàngat li ma ci am man. Mm-hmm. waaw njàngat. Ousmane Sonko daf ne ñii ay liste Macky lañ. Mm-hmm. ñu tontondoo réew mi yëngu tey ñuy dem assemblée. même bu dee dañ ne ay non aligné lañ mais dinañu voté ji ay loi dinañ jël position suñu abstenir xam nga abstention day am ñan ñoo d'accord pour ñan ñoo contre ñan ñooy toog ne suñu yoon nekku ci ñoom buñ toogee ne suñu yoon nekku ci paasan ñu ne waa Macky lañ waaw suñ ne bennoo la ñuy voteel ñu ne waaw kay Ousmane li mu waxoon dëgg wax dëgg la. te actuellement seen diggante ak Ousmane mi incarné Yewwi dafa ñagas. Ah. way la classe lekkoon kon lan la ñuy def ku ko trouver rek am nga dix points de plus pour prochain devoir bi. simple. waaw allez dox si dëgg. dox ci dëgg mooy la. mooy xool fi mbir mi nekk fi mu war a tege. mu war a teg non non non je veux une réponse précise. waaw <laughs> waaw mais Chérif liyaar am na. non non non liyaar. liyaar am na non non non non. xulil mun naa la. ici on parle des mathématiques. waaw waaw un plus un égale deux. ouais algèbre. non ah non man sa waay. ay arithmétique non non wuy ma. c'est-à-dire oui et trois points de suspension non non amu fi. Euh, s'il vous plaît pour la la question s'il la non ma question a été tellement claire nette et précise. non non non. non non non non non non non non. trois. Hmm. ñetti mbir moom mooy am. Hmm. ma ñii nga xam ne mooy opposition bi. Pape Djibril Fall opposant la parce que àndul ak Benno. Pape Diop. opposant la parce que àndul ak Benno. Thierno Alassane Sall opposant la ak waa aar parce que ànduñoo ñoo Benno. ku ànd ak Benno yaa ngi ci pouvoir bi. mais ku àndul ak Benno. opposant ñu tuumaal leen ne leen yéen ay liste Macky ngeen. parce que Macky yàgg na ko def. waaw ay nit ñoo xam ne dañoo nekk liste ba pare. Serigne Mbacke Ndiaye dafa ko ca élection député ah. en tout cas je suis content même bu dee sax man gagné ma tamit kontaan naa parce que samay allié gagné nañ mhm. te ñu la doon jiin dëmm ah. fekk la ngay seeñoo yeelu liir moo tax Ousmane Sonko dina rey cuuraay dëmmam li dégg nga waaw waa léegi ñoom ñii hmm. ma ne la une fois à l'assemblée gars yi dañu jàpp ne bataille pour la majorité potentiel arbitre du jeu ils doivent rejoindre l'opposition xam nga li ma hmm. dañu war a ànd ak opposition bi yeewi la ñuy dem àndal ak wàllu la ñuy àndal ah, waaw kay bàyyi groupe parlementaire bi gën a am doole et et et la chose <laughs> Pape Djibril Fall et je ah. pense que foofu lañ jëm waaw j'ai vu hier Pape Djibril Fall ñu wax ne nee na la cohabitation est actée donc il sera du côté de l'opposition ah, loolu moo la dëgg nag saay léegi nag mooy mooy lan ko waxoon ci départ ba looluy dëgg non ba pare xam nga problème personnel man pour man ñoom Thierno Alassane Sall amuñu problème ak la coalition. Mhm. même bu dee Ousmane Sonko est le patron de l'opposition. Mhm. élection moo fi amoon. ka jël deuxième dem na. Mhm. même bu dul élection présidentielle yi li xew nii wane na ni Sonko est le patron de l'opposition. loolu moom c'est loolu moom yaakaar naa ni. ma waaye boo ne ko ku la teree ne law danaan la Ousmane looluy dëkk. dégg léegi nag kooku nag moom moo wax. mais Yewwi génneewul sax communiqué bu officiel te tamit nag xam nga yéen yi tamit dafa am ci réew mi amaat ci réew mi amaat ci réew mi amaat ci réew ko nit waxee nit ñi di ko gëm Macky Sall moo ko fi yàgg def mais élection locale u barki démboo njaay moo ci mujjee ñuñ doon tuumaal ne dañoo ay list Macky sàll lañ ñu weddi ko mais ñooñu député yi ñoo dem ànd ak Macky wax naa Nimzaat day su ma waxee dëgg te yàlla tax Kalidou Niass du du liste Macky jaaji euh, Ngom du liste Macky ma Samba du liste Macky Fallou Diouf du liste Macky ñii ay liste lañu def Racine Talla am ci ñum ci woo ne leen ñëw leen ñu ne ko mukk ñun liñ bëgg mooy ngeen jóge fi. mais loolooy dëgg. yaa ngi doon xëccu pour gagner wàq naa Nimzaat wala Sam Notaire. Mm-hmm. Mm-hmm. élection yi jeex nga dem ànd ak yow xam nga ndax sa nit ñi nga nekk sa nit ñi la waroon fekk seen kër dóor la ba ngay bëgg dee. Mm-hmm.